dara oui mais yow xam nga ne man suturaal bu ne suturaal naa la. waaye dama ne génn kër sama papa nekk sama ba ma ngay daanu fi samay bagage ngay jël di lëñ ci lëñ ci di xool li am ak li amul yow xanaa xamoo ma yow. si bët yi génnal kër gi. dégaatal fii allez. ama ndaw du ma dem fenn laa la wax dama dul dem kër. Eh, lan ngay lan yow looy jooy lan ngay jooy lan ngay jooy yow samay bagage mënoo ko bàyyi daal di a jox paa bi nga xamante ne innocent la il est fou. man defuma dara pour rek laa doon def pour rek laa doon def defuma dara lépp Eva la defuma dara. defoo dara mooy waxi la da nga doon fóot ba nga gisee doo ko jël nga dencal ma nga di ko wan paa xoolal man wax aw ma lu may wax yow. tey fii doo fi ndogoo tey génn kër gi laa. du ma dem fenn taag sama papa ñëw. ma ne tey doo fi naanee café du ma génn kër gi sama papa laay xaar ba mu ñëw. da nga doon sëy ñaari baat dégg nga maa ngi tuddee woon première dame léegi deuxième dame la génn kër gi. laa ma laa ma daaw ma kër bàyyi ma. bàyyi ma génn ma kër gi bàyyi ma. ma ne da ngay bàyyi ma laa wa da ngay génn kër gi laa. bàyyi ma daaw ma daaw ma bàyyi ma. man maa gis tey man maa la bëggatul doo dem. loolu la ah daaw ma. bàyyi ma bàyyi ma daaw ma laa wa bàyyi ma. waaw léegi may ma baat maa la may ba may ma baat génn kër gi day génn kër. dafa koy génn kër. bee ama ndaw. wala maa waxal wala maa waxal. waaye loolu ngay waxal man day génn kër gi. eh yow doxal wala yow. eh kër gi nii. Ah! kër gi may ma rek. eh aw la eh xam aw la ma waxal wala maa aw. tegal tegal waa léegi tegal. bàyyi ma sama famille ama ndaw. bàyyi ma sama famille ma rek la ko. ci man mii foofu. Jokal Jokal. day génn de. Jokal day génn de. góor gi kii day génn xama ndaw dama bëgg nu waxtaan xama ndaw bi bës ka dimboo njaay na sa jabar ji la fut yi gis si aw laa xam ne naka si noonu la nëbbal lëkk ah ba kaw nax caat mii si kër gi loolu duma ko yëg ndax am na sutura si aw kii muñal na la guddi muñal na la bëccëg la mu la muñalul si biir kër gi amul man temps ba ma bool jógee ba ma bëgg dal ci sa kaw ba ma ci holé mom mi ma wat dina ta bi mu la jappé lolou mo ni mënoon na mëna laa kër gi té jëlon na mëna décision bobu taxaw aw li aw mi ni lam ko warona def waye mom moma fekk ci nit bi ñaanal ma wax man ba ma wat lepp ma bëgg nag ku delloo si sam xel ba baax té man dama ko sama ndaw dimbali ma ci wéru koor gi solo naa ma si weeru koor gii man xaw ma lan la maa oor si ma kër ndax aw léegi nag dama la ñaan pour ku jël lépp ku bàyyi ba ne góor gi ma dara te wax nga si biir wax ne yow danga ma war a génn kër gi kër gi moomoo ko sama yaay moo ko moom xam naa lépp yow danga ma fi man a génn mënoo ma fi génn de maire bi moo jënd kër gi mais pas yow kii sama famille responsabilité bi man maa ko yor yaa ngi dégg bàyyil ma génn. ama ndaw man bu baax rek la ma bëgg. Eh, bàyyil ama ndaw. bàyyil kii man bu baax rek la ma bëgg waaye léegi uy ma man oo na ma sëñ Modou Gaye ndax moom la ma loon waxtaanal léegi si yoon bi bii maa ñëw am na la mu ma wax bàyyil kii kii après sax du àggal si dégg nga day génn de. waaw ak loo ma mën la wax day génn. waaw saye ah. waaw kaay bi du fanaan fi tey. waaw waaw du fi ndogoo. leer la du fi ndogoo tey parce que. waa léegi aw nag fase na ma la. aw fase na ma la. si ma kër ba duggati ma kër jënd na ma nag ma kër ngir yàlla war a sóori demal. faa xam demal. góor gi mën ngay yoole. xam mën ngay yoole. xam aw baa war a ma kër day tay. kon tey laay tay. ak yow. yow tey tey laay taal kër maa gi ubbi nga ma bunte bi. fii ba nga yoole. xam yow mën nga yoole. parce que na ma la jëndal kër gi sa dama laa yu sa su ko njëlee. maa ngi toog di leen xaar. tey kër gi ku fi génn ma rey la.